alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ah, yéen mbokki jullit yi ak fépp fu ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen jox ku nekk seen wàccuwaay di sant yàlla di gërëm yàlla ci lim ñu may fii ci America mooy Quranic Revolution of 2021 ndaxte li jot dafa jot ndaxte alxuraan bi nga xamante ne dañ koy sàggane li jot jot te yàlla sant ne jot na mooy alxuraan bi mu ñëw dunduwaat ci xooli nit ñi ci barki la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax People's Republic of la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di am taxawaay fi mu toll nii ci Amérique ñi nga xamante ne ñoom alxuraan bi rek moo leen taxoon a jug fi mu toll nii xibaar yi fii génn daw na yaram ndeysaan ndaxte gis nañu ne dëgg yàlla dong moo fi nekk bu fekkee ne boy si ak euh, seen taxawaay bi sisters yi ak taxawaay bi ak girls si ak taxawaay bi coalition forces ak taxawaay bi ak ni mu demee nii dëgg fa neex yàlla sunu borom euh, ndam rek la ñuy may sunu borom moom dafa yombal lépp mu jël alxuraan mu ne jël leen bii bii laa leen jox su léegi gars yi daal di def nii maan di nangu li nga xamante ne loolu la sunu borom dogal ñu jël alxuraan bi tubaab yi nga xamante ne ñoom ñoo jëloon suñu maam yi ci Sénégal ak ci Gambia ak ci Burkina Faso ak ci Benin ak ci gana ak Nigeria Soudan maanaam fépp fu leen jëlee daal andi leen ci dëkk yi nga wax ne mooy dëkku togal yi maan xamante ne fii leen di jàngal ay tradition ak ay cultures yoo xamante ne nekkuñu culture alxuraan bi loolu moom moo tax euh, l'islam bi tey jii nii jullit yi ci bëri di ci dugg di xam ñu naka lañ koy dundalee ndaxte alxuraan bi la tubaab yi ne nañ ko saggane soo léegi history boobu nga xamante ne mi ngi dem at least one generation ak lu tegu 25 years in the western society western hemisphere particularly fii ñuy wax America muy Richmond Virginia particularly maanaam noonu la ka nit di ko gisee di ko xamee xam ngeen ne yàlla suñu borom li nga xamante ne moom la fi waajaye moo gën li fi tubaab yi teg waaye tubaab yi dañoo bëgg a jaay affaire u àddina gannaaw ba ñu sàccee àddina sàcc suñu nit ñi sàcc suñu tradition sàcc suñu culture sàcc suñu soxna yi maanaam tubaab yi jaxasoo nañu suñu xel yi jaxasoo nañu suñu der nga xamante ne yàlla suñu borom ñu ñëpp la ci bokk yemale tubaab yi jël nañu li nga xamante ne moom mooy maxduub ak doolan maxduubi alayhim wala daalin ñu koy jàngal doomu aadama yi ko defee doomu aadama nit ñi mës a xam lan mooy alxuraan wax loolu moo tax fi mu toll ne Quranic Revolution bi suñu borom daat koy nangu daal di ne nekk na loo xamante ne dëgg-dëgg góor yi ci taxaw ak xamante ne jaanante nañ ñoom ñi xamante ne fekk nañ leen fi mooy malaayika yi nga xamante ne badrin ak xamante ne ñoo nekkoon Karbala ñoom ñëpp taxaw nañu ak li nga xamante ne ñoom ñooy nekk ba ilaa yowma diin sunu borom fii la ko ci barki laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax suñu borom gannaaw loolu gannaaw bi nga xamante ne alxuraan bi setal na ko sellal na ko ci suñu xol ñuy wax lépp loo xamante ne yonent yi moom lañ ko daan waxee ba pare leen ci teg soxuñu dara ci àddina si soxuñu taytul saxuñu nekk imam retired kooku 1996 la kooku probe bi rek dina ko génnee because léegi probe bi mu ngi ci jaar ñu ngi jaar ci probe bi fi mu toll ne probe bi pour wane lan moo tax lii lépp a xew di roots of the revolution lan moo ko waral ak this 2021 gars yi ñu ngi dem 25 years ba kay yi ñu ngi dem ba 40 something years ñu explainal lan moo fi nekk cause bi and the effect fact finding mission so moo tax brothers brothers incorporated brothers daal di defaat nii nekk loo xamante ne lu set la lu wér la because ñoom really ñoom taxawaay seen taxawaay dafa set dafa seela but boy si tamit ñu ngi try you know boy si tamit ñu ngi def dara you know boy si ñoom you know ba ñu ak léegi amul sax wan yee boy si ñu ngi kii ñoom seen premier jeune xanaa kay xanaa ñu ñaanal leen ci gën a leen ci santal yàlla waa Sénégal tamit you know di tubaa you know Touba délégation bi tamit ñoom seen taxawaay bi sat na rafet na you know also you know brigade yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw yu know ci you know India you know Oman ndeysaan you know Arabie Saoudite you know ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ci you know wàll gi nga xamante ne mooy you know Yemen you know ñu ngi sant ñu ngi gërëm nga xamante ne ñoo taxaw ci Nigeria you know ñi nga xamante ne attaché all attaché yi nga xamante ne ñoom ñoo nañu ci dara lu dul la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk mu ngi def li nga xamante ne moom wala moom wala war ñu ngi sant suñu borom nag suñu borom moom daal really ñun gis nañ ni amuñu lenn lu dul amuñu kenn ku dul suñu borom moom mu ñu jox lépp lu ñu am loolu moo tax ñu def ko suñu xol bay def suñu xalaat ñuy gëstu ci alxuraan bi nga xamante ne moom la wàccee pour ñu ñu xamee ko noonu pour ñu ñu doxalee ko noonu pour ñu ñu koy jaayante ak moom di jëflante ak moom noonu nga xamante ne dina dem ba jël lépp loo xamante ne ñu ngi koy def loolu moo tax ñuy am islam bi nga xamante ne moom suñu borom wax ne moom lañu am Quranic revolution with the People's Republic of La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi social economic plan for the humanity at large for the purpose of long-term peace in humanity loolu moo tax uh, mbokk yi daal di def li nga xamante ne ñoom ñoo taxaw taxawal ci li yàlla di wax xam nga yàlla day moom lépp lu muy wax taxaw ci la ciy wax waaye rek du wax rek nit ñi dañoo tàmma di wax rek waaye duñu jëf loolu moo tax léegi ñu ngi gën a documentary bi nga xamante ne dafay wax ci jaar-jaar jaar-jaaru maanaam euh, kat bi nga xamante ne mooy mooy yore retired imam services nga xamante ne secretary of the din maanaam ki nga xamante ne really al imam al mahdi moom ci boppam nga xamante ne moom moo war a jugee ci west bi nii ñu nekkee nii moom xamal na fi lu leer naña li mu fi xamal mooy ni euh, situation bi wax dëgg fa neex sunu borom xamante ne sunu borom rek la ñu yaakaar ñun mbir bi daal ñu jox ko ko ñu jox ko boobu ñi nga xamante ne ñoom ñooy Revolutionary Council ñoom ñooy def probe bi nga xamante ne moom moo ci jaraat def ci wàllum euh, discrimination bi nga xamante ne booy si tudd nañ ko fi booy si waxoon nañ ko fi seen brigade bi keneen ki nga xamante ne brothers brothers in cooperative brothers ñooñu tamit seen attaché tamit xamal nañ ñu ne dëgg-dëgg ci gàttal voices of jannat tamit maanaam fam jannat radio station bi xamal nañu daal ci gàtt gàttal racisme bi ëpp na ci Amérique maanaam bilaal li ngeen ko daan toroxelee tamit bu ngeen demee ci seet ci Bilal rek war ngeen a jàppale loo xamante ne nit ku ñuul la te xam ngeen ne yàlla sunu borom képp koo xamante ne jox na ko tolof tolof méttit méttit googu bu demee ba toll ci diine gi la koy jox bu koy jox gëneel ci kaw suuf. ñu xamal mbokk yi nag képp ku ci jàpp ci network masjid bi nga xamante ne moom moom fi lañ fi nar a ñi nga xamante ne ñoom ñooy njëkk a jot ci loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a soxla lii nga xamante ne tamit moom mooy agencies yi of intelligence as well as operations in administrative administrative socialized and economic uh, practices dina nekk loo xamante ne tamit su gëneelu àddina ak ci gàttal gëneelu sunu boroom rekk mat na lépp kon nag ñu xamal mbokk yi ngeen yokk seen ñaan yi ak seen sarax yi te tamit ngeen di jaamu sunu borom te yàlla rek tax da ngeen xam ne liggéey bi sunu boroom nangu na ko salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ku nekk na jàng alfatiha bu ko jàngee juróomi yoon ba pare mu teg ci suratul ixlaas bu ko defee juróomi yoon sura falaqi juróomi yoon naasi juróomi yoon balaa muy tëdd mu teg ci bismillahi arrahmaani arrahim bu ci tegee bismillahi arrahmaani mu teg ci subhaanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett yàlla sunu borom lépp lum ko tegoon dina ko teggi lépp lu mu jàppoon dina ci mucc dina ci am ndam lépp li nga xamante ne moom na neex sunu borom dina ko ci gis incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh